Ça veut dire que le peuple a déjà rejeté le projet. Qu'il soit accepté par une assemblée ou non, le peuple a déjà dit son, mot. Maintenant, on attend l'assemblée au tournoi. s'il wax na askan wi wax na kàddoom mooy ne ko. léegi nag des na assemblée bi ñu ngi koy déglu ba xam ndax dafay jaar fi askan wi jaar wala dafay jaar faneen. léegi mën nañ xam si Lamine Niass lan moo ko andi fii nga xam ne moo di buntu assemblée nationale. kenn la ci doomi askan wi askan wi jóg mu ñëw ànd ak ñoom loolu rek la.